Cheikh mbaw maa ngi lay nuyu. voilà may fàttali suñu auditeurs yi ne moom mooy directeur exécutif bu coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation muy l'éducation publique muy COSYDEP monsieur mbaw ngeen euh, am ay propositions yi nga xam ne yëkkati ngeen ko ci lubbite école gi ñuy euh, wax ne le 2 juin boo mayul xale yi dinañ delluwaat ñu bëggoon xam yan proposition ngeen teg ci taabal bi waaw xam nga ñun dèjà dañu fàttali nii l'école bi xam nga ni di ko tëjee ñëpp ñoo ngi koy fàttaliku. Mhm. école tëjul ak suñu suñu sago amoon nañ suñu calendrier ñëpp bis bi la ñuy def examen bis bi la ñuy def compo bis bi la ñuy def lii mu am benn euh, virus bu ndaw bu ñëw dugg ci biir euh, dëkk bi duggaale ci biir l'école bi bañ nañu liggéey boo xam ñëpp donc loolu dafay dafay dafay ñëw ba dina jaxasa nag loolu ñu tuddee calendrier euh, de en tout cas ni ñuy jeex téléphone léegi nag ñun aussi parce que jàpp ni lu mel noonu bu amee war nañoo xalaat euh, wér-gu-yaramu euh, ndongo yi parce que loolu dañ ci am problème euh, ndax bu ñuy seet droit ne mm-hmm. ni xale yi dafa am leen loo xam moom la leen yàlla jagleel te yàlla lu mu def rek xam nga lu tax mooy yàlla dafa jàpp xale moom place mooy njàng ak xam-xam mooy waral fa ak façon njàng bu mu mënti doon donc loolu mooy waral aussi l'école am solo loolu ci xale ndax l'école aussi dafay protéger xale l'école dana ko protéger ci jox ko xam-xam jox ko jikko jox ko même li muy a taxawaayoo bu nekkee jàkkaarloo nag feebar yu mel ni feebar ko jël euh, évidemment am nañ ci cinq scénario ay scénario hypothèse mais bis bii nañ ko jàng loolu lañ jël ko évidemment nguur gi nguur gi am yeneen dossier yeneen proposé yu mu jotee feneen bu mu toggatee lépp nag ah si le président de la bi incha allah allah bëgg na xale yi bu ko waxee waaye ñun dañuy jàpp ni évidemment que ñun ñëpp mënuñoo yaafus donc même bu fi virus bi nekkee il faut chaque fois ñuy jéem di essayer di mbëbët comme ni ñu mbëbëtoon le 4 mai yàlla def bi mu jegee ñu ne mën ko nekk di béy dañ jàpp mooy suñu climat ci naa sax xëy na moo wax président ba président nangu de décision bi mooy kilifa yi nga xam dañu nekk ci kër docteur yi. kon mm-hmm. nag ñun jàpp nañ ni loolu moo waral évidemment ñu jàpp ni le 2 juin war nañ ci mën a waaye ñoo ngi ñaan ci jàpp it ni suñu suñu réew suñu Sénégal ak suñu kilifa mm-hmm. euh, loolu projection kese la waaye bu jegee bu fekkee am na lu wane ni euh, dellu teel na mënta nekk il ñu jéem a oyof nanguwaat delluwaat ci li ñu waxoon mm-hmm. bu fekkee nag yàlla mën naa def ñu mën a dem nag ak ah, ñu xam nañ ci léegi jël nañ hypothèse bi le 2 juin yàlla mën naa def dem am mm-hmm. ñu ne balaa am na lu muy laaj loolu muy laaj nag ci la ñuy nettee kayit yi pour wax leen li muy laaj Euh, bëri na parce que fii ak le deux juin matatul weer mhm. donc bis bi jot bi ba war a dalal xelu euh, askan bi lay doon ak waajur yi ak ak ak élève ndongo ak kër jàng na kat mhm. donc pour le faire ñun jàpp nañu évidemment que il faudrait que ñu fexe ba nga xam ni euh, lépp loo xam ni comme on appelle delluwaat njàng bi la ñu bedd benn xale donc nekk xale ak examen yi kese xale Sénégal damay tàmm di fàttali ni baccalauréat kenn du ko amee terminal def ku am trois mbaq xam nga ni xamee woo ko terminal ñëpp xam nañ ne BFEM kenn du ko amee troisième que certificat kenn du ko amee CM2 euh, c' est un processus bu fekkoon ne xamoo tous ni mu waree seconde jàngoon ni mu waree première nga taxale ba ñëw terminal baccalauréat doo ko jege am. wante nag il ñu respecté classe de pays bu ne classe intermédiaire bu ne ñu utal ko euh, en tout cas gunge par rapport ak Covid loolu bokk na si ñu ne rek il faut ñu fexe ba suñu lekkool yi ñu sécuriser leen désinfecté leen à part de maintenant. désinfecté parce que ñëpp xam nañ ni euh, virus bi moom li mu gën a bëgg mooy clim ndax suñuy école il faut mu set set nag ba nga xam ne xale bu ne dana ci mën a gis boppam am fu muy raxasoo am euh, et cetera mais set aussi ba nga xam ni euh, surveillance collective école bi yëpp dana am jumtuwaay yi war a tax évidemment set bi mën a nekk. Mhm. ñëpp xam nañ ni suñuy école booy fàttali ko toilette yi du demee demeewul noonu ñenn ñi amuñ sax ndox ñenn ñi sax amuñu toilette kon nag Covid bi daf ñuy fàttali nii suñuy école war nañoo xoolaat nan la bindoo kon école boo xam ni amul toilette gouvernement bi ñoo koy ñaan ñu fexe ba mu am bloc sanitaire euh, moo xam bu simple lay doon waaye na ko am école boo xam ne am na ko te euh, bloc sanitaire bi doxul fonctionnelul parce que amul ndox wala dafa salte wala dafa bouché hmm. nañ ko jéem a defar parce que lépp mu ngi lalu ku ne wu nekkoon bi donc loolu tamit poñ la boo xam ne ñun teg na ko table jàpp nañ aussi que ni euh, war na am loolu tuddee un plan de mouvement maanaam xale yi nu ñuy nar a demee ci l'école ba euh, génn seen kër ba egg ci lekol ba te duñ ci am benn euh, duñ ci jàkkaarloog jafe-jafe yooyu mhm. mais nan la ñuy duggee aussi biir l'école bi est-ce que comme ni ñu doon xam ne ñëpp ñu buuxoon te dugg nan ñuy nekkee ci biir ci biir l'école bi biir classe ba ñaata lañ fa war a doon ñun li ñu proposé mooy waru ñëw weesu benn par table banc donc diggante quinze ak vingt élèves par par par classe mhm. bu ñuy génn ci l'école bi na lañ ci génnee donc il faudrait évidemment que ñu jël euh, bu ñu génnee école ba seen kër nan la ñu war a demee donc yooyu yëpp bu ñu waree jël euh, seen i oto wala seen oto waajur wala war ñu war a dox yooyu dafa nekk ay mbir yoo xam ne dañu ko war a settanti bañ cee xeeb benn bañ cee négligé benn xool détail yëpp loolu moo ñuy waral évidemment ñu mën am benn plan boo xam ne dañu ko boo ko waxee élève boo ko waxee ah dafa am koo xam ne mooy nekk ak moom kon nag euh, moo tax ma jàpp ni couple la mooy jàngalekat bi jàngalekat bi bu wérul élève ba di wér mhm. élève bi bu bu wérul aussi mën naa Euh, am na mu laalee jàngalekat bi waaye it jàngalekat bi mooy ki nga xam ne mooy gunge même élève bi ci di ko wan nan la war a taxawoo nan la war a jëfee donc kooku it il faudrait ñu am benn attention bu leer boo xam dana am ci ci nan la fexe ba mu delluwaat ci l'école ba parce que fi ñu toll ñoo woon ci état d'urgence mais ni ñuy fexe aussi ba nga xam ne en terme de dispositif mhm. donc yooyu yëpp daal mhm. euh, technique ci table bi boole ci nag ni dina am solo lu mel ni bu amee ñu jël donc benn xaalis boo xam ne mhm. danañ ko jagleel euh, gunge reprise bi am si xaalis googu monsieur Mbow ndax foog nga ne mu ci oh. gafa gi. mais attends Sénégal def nañ def nañ xaalis lu dul jeex ci leneen loo xam ne li ma ko solo. Mhm. ndax ndax am na gafa gi am na fi li am solo mooy volonté politique ndax nguur gi du mu ne soxla naa mille milliards pour euh, gunge Covid la ko am. moo xam ne mu ko lijjantee su mu nee damay bëgg a tabax dafay defaat teer am da koo am moo xam nu mu ko lijjantee bu nee nag damaa bëgg sumay doom dem delluwaat ci l'école ba li muy laaj ci alal bu ko amul ñu xam ne kon kii gëmul li mu wax kon dana ñun fii li ñu wax mooy euh, amul lenn loo xam ni évidemment sut na nguur gi war naa mën a fexe ba xale yëpp am masque yu doy masque bu koy waxee la day nekk bu tuddee ba tuddee ñett masque par xale Euh, yu nekk aussi de qualité yu répondre aux normes mhm. war nañu am ay dispositifs de lavage mbay comme j'ai dit war nañoo defaraat ci toilette yi et cetera donc lu mu laaj ci alal te jàpp nañ ni mën te dem a dem a dem ba weesu un pour cent wu mille milliards yu joxe un pour cent mille milliards dem naa euh, bu nekk su ko mat te ngu te te te njàng beeg njàng bi jar na ko parce que mhm. suñu avenir réew fa la nekk booy seet Covid bi réew yi si gën a sonn mooy réew yi nga xam ne amul ñooy ndaw ñun ñu am ndaw nag war nañu protéger suñuy ndaw wante nag bu mu kenn wax am na moyen wala amuñu ko waaw am nañ moyen wu def ko nañ jàpp daal ni waruñoo jël ay risques suñuy doom waruñoo jël ay risques li nga xam ne moom mooy dispositif li ñu war a def mooy waaw naam waruñoo tëj l'école yi nag ba faaw parce que xale wax dëgg yàlla place am école la mm-hmm. il faut donc ñu seet nan la mën a fexee ba delluwaat ci l'école bi mais en même temps protéger nos enfants ba loolu mën na ne bu ñu jëlee moyens yi mu laaj def ko ci moyens yi mu laaj jaar de manière très claire bañ a bett kenn fàttali ko ñu gën a nekk ci biir promoteur Sénégal loolu bu ñu ko defee évidemment que gunge bi dina mën a nekk te boobaa dana mën a cohérent par rapport ak ça daal li may bañ a dégg mën a ndax ndax nguur am na moyen wu mm-hmm. nguur am na lu ëpp moyen bi euh, pour gunge nga xam yi wax a a parrainage bi ndax foog nga ne même loolu dinañ mën a contrôler xale yi surtout ci élémentaire bi waaw xam nga bu ñuy wax euh, sécuriser daara yi moom wax dëgg yàlla li ñu ci gën a jublu c'est mooy xale yi sax te daara ci boppam ndax xam nga ni yow bëri na ay yoo xam ni amuñu gardien mhm. amuñu mhm. am na ñoo xam ne am nañ gardien boo xam ne duñ ko fay donc du def liggéey bi mu waree mhm. te puisque président la fi def nañ ne na suñu école ba ni yëpp ñoo ngi fa école ba jaar-jaaru xale yëpp moo ngi fa donc tey ji bu nekkoon daan nañ covid bi dellu suñuy lekkool fekk ko fi ñu fa ay këyit fekk ko loolu bu rëy moo tax ñu ne nit ko da ngay fagaru da ngay da ngay séntu lu ñëwagul da rek xel day day ñaaw da ñaaw xel loolu moo waral ñu ne woon war nañu sécuriser l'école yi collectivité territoriale yi maire yi war nañu mën a fay fexe ba école bu amul cadre ñu ko a ñëw ne courant mhm. def suñu école yi matériel bi fa nekk duñ ko ñàkk parce que ñun ko waxee rek ñaari fan après gis nañ ni am na benn école bu nekk Thiès bu ñu vandalise toj ko sàcc fay mbir mhm. am na bu nekk duñu naa boo xam ne ordinateur yi lañu yóbbu donc luy muy serveur muy xam-xam bi nga xam ne yëpp nga jëm ca fa loolu jàpp nañ ko muy benn bi loolu nag pour l'école bi la pour facilement l'école bi yi si bopp ndongo yi mooy dañ fexe ba évidemment ñu am euh, un dispositif boo xam ne dana tax ba xale yi euh, dana am sa euh, sa waxuma ko si nasaraan mhm. waaye am ay am ay ay assistants sociaux ay psychologues conseillers yoo xam dañ leen gunge comme mhm. dara seen xel parce que danañ tiit mhm. bu ak bi jàng ak coow li ñuy dégg ci télé beeg rajo bi covid bi covid bi xëy na xale bi nangoo def jàng ji sax fit ba dana dem dëgg la donc kooku ko moom benn discours boo xam ne da koy dalal. Mhm. mais ensuite xam nañ ne xale yi buñ fa eggee buñ jékki mhm. yëpp ay mbir la xam ni évidemment bu ñu yaatalee wax bi mën nañ koo jëfee parce que li ñu war a def moom euh, du weesu li at mhm. ëpp xam-xam li Sénégal yëpp di at bi di def waaye li ñu mën def mooy nan lañ koy adapté ci suñu situation ba nga xam ni ñu nekk ci gox goxaat yi euh, ñu mën leen a ñu a te loolu yëpp na bu ñu koy def nañu góorgóorlu ba euh, la benn waajur du laal poosam matériel bi war naa mën a mat jarul ñu na benn xale ñëw ak maskam lépp war naa mën a mat matériel war naa mën a mat te loolu comme je l'ai dit sànq euh, réew am na ko mën na ko bu amee volonté bi te yëpp jaar na ko parce que sànq maa ngi yeneen réew yi li nga xam ne moo tax ñu gën a sonn mm-hmm. mooy ay réew li nga xam ne ay màggat ñu fa ñun nag suñu réew ay xale la ñu am nañ protéger suñu xale ndax suñu xale ñooy suñu or ñooy suñu trésor donc faut pas que ñu sacrifier leen lépp lu mu laaj ci matériel ci xaalis bu ñu war def waruñoo hésiter pour def loolu nag bu ñu ko deful évidemment que ay acteurs comme ñun nekk su ñu nekk terrain bi bu ñu ci eggee lépp lu ñu gis te jëm te jëmul dans ce sens là danañ ko dénoncer wax ko fa ñu ko waxee yuuxu ko ba Sénégal bi parce que dégg ko bu ko defee loolu mooy mën a waral évidemment ñu mën a nekk suñu mën a mën a fexe ba nga xam ne à la fois danañ jàkkaarloog Covid bi mais à la fois aussi danañ fexe ba bi nga xale yi ba ñu mën a continuer ci dem ci nga xam ne foofu la ñu yàlla wala mooy ci l'école ba fi ñuy utee xam-xam ak fi ñuy utee jikko laajte bu mujj bi monsieur Mbow en tant qu'organisation bi nga xam ne défendre intérêt éducation publique moo leen tax a jóg ndax jàpp ngeen ne dossier école bi euh, mu ngi jaar nu mu waree ci période de crise bi euh, ci li nga xam ne mooy waxtaanu reprise bi ak solution yeeg yooyu. waaw xam nga xam nga moom ni mu waree moom euh, ci situation de crise moom bu ñu waree fa yàlla nga tax doo am mukk ni nga xam ne noonu noonu la noonu la gënee. Mhm. situation de crise situation exceptionnelle situation exceptionnelle moo waral xëy na sax yow tey sa émission bi na nga ko def ak man woo ma ma jàkkaarloo yow tey nga def ko téléphone. Mm-hmm. situation exceptionnelle moo waral tey da ngay teel a ñibbi situation exceptionnelle moo waral et cetera donc loolu situation exceptionnelle bi day day dal école bi parce que nag lépp mënu dox mu mm-hmm. ku nekk nga xam jàngoo ko ci l'école jàngoo ko ci université amuloo amuloo solution. Mm-hmm. solution bi dañ koy sotti. nu ñu fexe ba nguur gi ubbeeku ubbi buntam déglu ñëpp déglu xalaat ñëpp bu dégloo ñëpp nag gis bunt day gën a yomb waaye bis bu ñu demee ba nga xam ni dañu am euh, nguur goo xam ne yaakaar na ni bu toogee ci juróom rek lépp mën naa sotti wala solution yi nga xam ne moom la xamal leen solution classique lay jiital hmm. donc bu ñu ko defee rek évidemment ñu suñu yàlla kon nag ñun euh, ñoo ngi fàttali di jàpp ni euh, fi mu toll loolu la ñu njëkkoon woote hmm. moom mooy mu fexe ba mu am une démarche inclusive partenariale

xam ni kenn amul solution bi kenn amul ëpp sa borom xam-xam bañ a xeeb kenn euh, am aussi préjugé yu positif si yëpp li gën a bon aussi si mel nii mooy nga jàpp ni ah képp koo xam ne moom xalaatee neneen rek daf maa compte il faut leen ñu bàyyi sénégalais ñu xalaat ni ñuy xalaatee ñu bàyyi leen ñu posé wu e question parce que situation la boo xam ne lépp a tiit ñëpp wu ay question évidemment yow nag en tant nguur mooy nga am ci dégg-dégg bu rafet jàpp ni ñu jaaxle lan kese ñoo fi nekk di jaay di posé question bu ko defee da nga mën a euh, mën am sérénité ci waral nag utal leen tontu di tax évidemment que situation yi mën a mën donc daal ubbeeku teglu ñëpp bañ a xeeb kenn euh, loolu daal bu ñu ko defee évidemment que euh, gestion crise bi dina mën a nekk parce que moi j'ai l'habitude de le dire Sénégal wax dëgg yàlla ñi fi nekk bi ngay cuune yàlla may nañu xam-xam boo xam ne àdduna nangu na ko bu ñu ubbi suñu courant rek mooy ñëpp xam nañ ko mooy yenn saa doo xam euh, ni ñuy defarante suñu biir day mel ne ay soxarante ak ay gàggalante day am gàggalante day am mais bu nekkee nekk nañ si dans une approche positive rek ñun bi ñu am ñun gëm nañ ñu amul boo xam ni évidemment beneen réew mën na ko trouver te ñu ngi mm-hmm. fi ñu toll mm-hmm. fi ñu toll bëri ay réew yoo xam ne évidemment ñoom jàpp nañ ni euh, commencé nañ trouver ay solution par rapport à ce président mm-hmm. donc suñu réew mënu nekk monsieur Mbow Cheikh Mbow merci beaucoup bi ci Covid dix-neuf bi ci mu gën a gaawee. di aussi jaale képp koo xam ne ñàkk na ci bakkanam. di seet aussi képp koo xam ne da nga nekk au euh, quarantaine. Euh, donc euh, ñaan Sénégalais yëpp daal ñu dolli boole koog jàmm mais it ñu respecté gestes barrières yi. bu ñu ko defee yàlla